liggéey bi man euh, yéen du ma expert mais bët moom am na lu muy wone dañoo waxoon daf pont bi mu affaissé wu la ñu waxoon te vraiment c'était pas nekkul woon pont bi bi ma ñëwee tey suba xool naa ko xam naa ne pont bi rek ñëw bi ma laa waxal ñu ne ma non ñoom ñoo doon pour teg trottoir bi pour kal ko ndox bi fekk leen fi ñu bàyyi ko ndox après ndox bi ñëw daañal kii bi affaissé amu affaissement vite fait dem julli nga defar ba defar nañ lii xam lii loo bu doon deful lu nekk lu garaaw du gaawee nii quoi. du gawé ni ko akon dit du gawé ni xam nga ñun Sénégal ñoko bok président ala kulli il n'est pas éternel la fay dem donc ñun nañu gëma xol ñongal li ñu li ñu bok nañ ko ñongal ba mu baax ñun ñëpp ñu jëriñoo ko ndax moom bu démé da fay baax ñu baña a suñu biir bu fukk di gas nak fukk juroom di sul dekk bi ma sa dox nañ jëma a defarante yéenante jàmm sénégal bi kété mo yàqal sénégal bi do fekk fi ab burkina muy yàqal burkina bi wala dakki mais sénégal mom fu mu fekk morom sénégal da koy yàq ba avancer yow nga ndax bëgg tok niñ ko garaawalee garaaweelu noonu ndax dèjà ñu ges canal pour ndox mi mën a jàll dem beneen tuyau bi boo xoolee fa di nga beneen tuyau nële c'est-à-dire kon man ñoom li ñu wax de man kenn waxuma damaa demandé bañ wax ma man nit waxaat ñoo ñoo doon gas pour mën a ndox bi ndax fii bassin la fii la borom fasare doon fanaan fàqumaane fanaan kon bassin d'eau la luy garder ndox nag bu ndox bi ñëwee da gas bu dee ka commencé da nga commencé gasal yoon soo gasal yoon mu jaar ci loolu la pam demee mais lii nekkul lu garaaw nañ bàyyi garaaw beeg yàq ak montage Dakar nag moo mel ni mu bindoo li ñu waroon njëkkee viabilisation yi waroon njëkkee njëkkee wuñ ko on a faussé notre départ comme faussé suñu départ nag dañu rattrapé waat jéem a xool ku nekk loo defar nga xool fexe ba yow ba ndox mi dugg kër ba pare commencé ki bañ ko jiiñ les autorités.